ah yéen a ngi koy. yow yaa ngi toog sa bopp noo def. sant rek. waaw bu lay def nii. toroxal toroxal jaam yi. waaw am na am solo de. am na am solo mën na may toroxal jaam yi. wóor naa ne. Babe, mata intel. Yaay kan? Mata intel, intel. Intel. Intel. Ah, sol rek ngay lekk. Ah. yéen béy bi mbaa koy jàmm la te yéen ñaar moo jege boppam. béy bi nekk caabi de. nekk caabi de. ay béy bi mbaa koy jàmm la. dem ba maa ngi woon ba ci mbaaw. waaw ba tey maa ngi géejawaay ah waaw. ku tudd ku tudd lakk mburu wax tudd dëkk ba léegi ñu ngi ci. Euh, ku lekk avance. ku lekk avance te du ko ñaar na ku lekk avance ngay tudd ko. waaw ndax tey euh, ñu ñëwaat xool si ki nga xam ne moo lekk avance. waaw euh, démb ñu ñëw ci seen ñi fas yéene tëdd pom waaw fas yéene ñëw nag ci Balla Gaye mi nga xam ne moo lekk avance moom it fas yéene tëdd pom Balla Gaye luy njëriñam ci combat bi euh, njëriñam ci combat bi yaatu na parce que carrière bi ci joué hmm? la dal ëmm rek moo ko dal ñoom ñaar ñoo bokk jàngoro ci lamb ji fi mu ne alaaji waaw mën na la woon combat des guerriers combat de la résurrection ak combat du siècle loo ma boo ma ci tànn résurrection parce que ñoom ñaar ñëpp dañu nekk ci biir saako te boo nekkee ci biir saako résurrection rek nga mën a def pour génnaat. kon mën nañ ko tuddee combat la résurrection. de la ba pare. en même temps aussi dafa combat bi ci ñoom ñaar dama ne ñoo bokk jàngoro su làmba amoon jàngoro ma xam ne ñoom ñaar ñoo ñoo ñoo wàllante jàngoro. kon daal siti bi ci ñoom ñaar ñëpp. ñoom ñaar ñëpp siti <laughs> waa ñoom ñaar ñëpp siti. Euh, fu ñu ne nag ah kan mooy naan garab ga foofu la coow li ne. léegi on va voir diggante euh, Mor ak Balla kan moo ci wér nag. Hmm. parce que ñoom ñaar fi mu ne ñoo bokk jàngoro ci lamb moo tax tey ñu ñëw fi euh, géejawaay te fu seen ànd ak Balla Gaye léegi waxtaan ak moom mu wax ñu lan la nar lan lay waaj ginnaaw bi mu signé contrat ba pare. muy ñamali xam nga li ñuy def démb ak tey yëpp ñamali waaw la def kër Amath Sène ñamali la tudd li ñuy def kër Balla Gaye ñamali la tudd. kii Fane Banta waaw kii waaw xam nga Lamine mais El waaw seen kër la blocage génne de fecc boobu. waaw nijaayam. waaw parce que kër artiste lu ko xam waaw kër artiste lu ko xam nga ñii ay euh, géwél lañu ay artiste lañu dëgg la. moom artiste la dëgg la bien vrai que animateur mais artiste la dëgg la euh, ndax moom nii budul métier bii mu ne am na beneen métier dëgg la euh, kon euh, waxtu ñoom ay kon xam nañ ko waaw non dama ne mhm. la nañ doomi faas mhm. te doomi faas war ngaa xam lam war ngaa am métier Mm-hmm. ndax Fass mooy Médina te Médina dafa am lu muy màndarga xool ko ba xool ko ci ki yilif kër Médina mm-hmm. cuuna dafa judd mm-hmm. dëgg la waaw dégg naa xale boobu sax di ko xale bu bees bu mu tudd ah Pape na nee na li ma ci gën a neex nag na kenn mënu laa duut wax na dëgg dëgg am na loo seetluwul nga bëgg jaay ko ci am na loo seetluwul balaa ngay commencé am na loo seetlu balaa ngay commencé ma ne balaa ngay commencé am na loo seetlu ma ne la ku la jàngal bolokaas ah rës gi wax ah, loolu yëpp la am na loo seetluwul de ah, mais jëlal sa bindi jaay ci suuf ba si kaw waaye déet loo jëlal ah, da koo beral loxo de waaw da koo beral loxo da koo xam nga ne tey jar ndéem la. ana nu demee. jàkkaarloo la. saraxu leen. waaw. doo soose. joolaala. joolaala. te képp koo xamante ni nii dafay euh, dugg Casamance. waaw di def dara ab séeréer. waaw damay jarbaatu jool jarbaat jarbaat moo fa gën ñëpp. ana asaka su déglu ma rek jarbaat fa gën ñëpp. waaw te jarbaat lu mu fa bëgg am ko. te lu mu ko fa def bu bu mu feeñ. te kii di revendiqué ni maay Casamance. Hmm? am na séeréer. nee na mooy Casamance. nee mooy waaw lépp nee na mooy jarmaatu joolaay. ba pare ne asaka. at mu ne da koy jox. waaw du la waat mukk. waaw xam nga Balla dafa ne euh. combat bii passé. waaw asaka la. waaw mat seen tontu ne. asaka du la wàcc waaw du wàcc nit. kon beneen mën naa génn. est-ce que xam nga ni soo duggee fii léegi. ne ko Balla Gaye numéro un daf laa war a tontu. ah loolu nag nañ ko bàyyi moom. mais déggul li ama seen wax. waaw léegi nañ ko ko laaj ndax mooy. nee na nee na dafa dugg géej waaye. daan Lac de Guiers numéro 2. 2 waaw. daan Balla Gaye numéro une fois. waaw kon deux bi ñëw. waaw nee na bi la bëgg a tamponné. la bëgg a tamponné. mais dina yomb. dina yomb dina yomb. mais buñ duggee fii di dina lekk. ah déet Balla Gaye kay xam nga ne booy booy booy raas ba daj ba daj ci moom. waaw ah. <laughs> moom moom Balla Gaye mooy leeral dégg nga Eumeu Sène nee na Balla Gaye dafa neex. <laughs> dëgg la waaw loolu la parce que Balla Gaye moom droit lay def da lay wax li mu bëgg a def waaye li ma jaaxal la ni une minute quarante la ñu bëri woon bay passé. ah oui une minute quarante. Mhm. mais man dama dama dama dama am lu mu tiit ci combat bi. mooy waaye nag dañ fàttali am lu yow xaw gul de. waaw combat bi ca tàggaloo la amoon moom bàyyi ko. waaw waaw xam nga fët fët. waaw yàqale waxul mbaam ak noppam déedéet. Eh, mbër saa yu daanoo lay. mu ne si ko jàppee lay. benn lay du lan. déet. waaw pàq. waaw waaw benn pàq du lay. déedéet wolof nee na. waaw benn pàq du lay. waaw le 5. Hmm. avril. waaw waaw ci la ñuy xam beneen pàq. déedéet nee nga moo woon ci bokkul sax. waaw xam nga euh, cin du mën a bokk ci <laughs> mënul ndax euh, dafa am lu neex ak lu saf. waaw waaw ñiy togg li neex. waaw bokk togg lu saf. ana nu mu demee. Ah, waaw lu saf. mooy lu ñor lu neex di togg. mais pourtant sama waa lu neex. non lu lu lu neex. waaw mooy lu neex digéré. waaw lu saf mooy li ngay lekk di siitu. Hmm. waaye am seen dafa ne fii. déet combat siitu la. non déedéet Eumeu dafa defi fi. non am non non gis ñu ne ak béy. waaw waaw bu fii. am na fi. génn na béy baa génn na ci kanam Pape la am photographe. waaw melu. waaye bi nee a yow yaay jinne. <laughs> man maay jinne mala. njool njool lan la mooy malaaka. Ah. ah loo def si fii. lu ma def si ñoom ñoo ñoo ñëwoon pour def si liggéey bi. Ah. dañu ñëwoon pour jël sa Balla Gaye. ah waaw. pour seeti Dakar Ndor Pape bi. Pape dégg naa prévoir nga dix mille photos ci affaire waaw loolu moom pare na wala cent cinquante non dañ si yokkee wuñu cinq mille xaalu Balla Gaye waaw xaal ji xaalu lan la ayo ah, eh xaal ji xaalu lan la lii xaalu Saalum la xaalu Saalum bu tudd Balla Gaye waaw xaalu Balla Gaye dë ah. waaw xaal ay ñaata xaal lay lekk par kii xaal waaw ñaata xaal la Balla Gaye lekk par kii sa ça dépend rek si moom. parfois quarante xaal. waaw par cent sax. Maaw sama gars yi eh, Médou sama laa ko bëgg a jëndee rek. alaaji xaal mbay. ah waaw wàcce ko nga tag ko gars yi kii. Ah. waaw cinq ay ma yaa jënd laa de xaal. Mm-hmm. alaaji mbay la ñool ñool la ñool. Ah. alaaji mbay. xaal benn. Ah. alaaji mbay saa yi ama seen mii soxna di salaamaaleykum yow yaay kan salaamaaleykum yaay kan yow comme yow kii nangul wax kii kan waaw ama seen lu muy def kër daal waaw non dama lay laaj kii lan moo tax ñu tuddee ko Eumeu Sène laa lay laaj. demee si biir di nga xam. non dama lay laaj lan moo tax tuuti waaye kii lan la. boo demee mais kii lu tudd nga ne. ma mais kii lu mu tudd. dama si biir lu mu tudd. mais mon ami lu wànq di dox noor. sànq ma di dox noor. ah ñu ngeen def kër Balla. seet gos bi rek nu mu toogee. ñu waajalee suñu bés bi le cinq avril. kii mooy Malal Diagne bu RFM. waaw loolu lu wér la. kii nag mooy l'homme de Conakry l'homme de Caire L'homme de L'homme de Port Saïd ki mooy Doucouré le grand photographe. warxaa wu ñu ne. ah lu lu waral warxaa. ah du Modou Fall. mooy warxaa. mooy alias warxaa. warka rek la mën. ndax bu a la moom nga daanu. mënul la ataaya woon. dañuy soob de. warxaa bi ci ñoom si la mujj nag tontu waaye danañ ko jëlee ndax baat bi.